waaw delloo bëgg a gaynde naka taw feex yi ci loon ne sant nañ baax kay alhamdulilah yaa si jàmm waaw ñoo ngi sant yàlla baax alhamdulilah dem ngeen génn ci journée journée bu bëri coow. Mm-hmm. Pokola Baldé Liss Ndiago. Mm-hmm. Eumeu Sène Sa Thiès mm-hmm. mais ñi gën a indi enjeu mooy Pokola Liss Ndiago ñu ñëw fekk fi oto bu ñu saccagé oto bu ñu toj. lan la lan moo waral loolu. mais man affaire yi comprendre ma sax dañuy dem stade dem bay waaj a egg si arène nationale bi gis ay xeer yu ñëw te moment boobu mënoo def demi tour mënoo def dara parce que ah, oto yi ñu ngi am na oto yi nekk suñu ginnaaw du nekkul benn oto bi rek moo toj de. ak yeneen oto ñu ngi toj foofu ay range oto bu nekk oto bu nekk toj nañ ko xam nga li ma la mënoo defaat demi tour rek nga mën ba fi la mesure ni la mujjee demee mais yàlla baax na comme heureusement ba kenn gaañuwul kenn deful dara ay yàqu-yàqu la rek te incha allah xaalis moo koy defar dinañ ko defar si kàttanu yàlla waaw. mais mun nga ñu ñëwal ci lu toj oto bi. oto bi lu ko toj mooy sànnante xeer yi amoon ci buntu stade bi parce que Liss Ndiago ak Pokola dañu daje ci buntu stade bi juste ci buntu stade mais Liss moo ñu jiitoo tuuti ñu topp ci ginnaawam ci diggante boobu nag ci la waa jàmm gën yi tourné di jëlay xeer di sànni booy Pikine tamit di jëlay xeer di sànni xam nga ñun ñaa camp yëpp a doon sànnante xeer xam nga ba lii am ci waaw. mais oto bi kon mun nu mënuñu soupçonné ne waa jàmm gën ñoo ko toj. oto bi waa jàmm gën ñoo ko toj parce que oto bi dafa jógee nii di ñëw xeer bi ko toj teel a jógee ah. oto bi ñun dañuy jógee EDK di dem xam nga bu jógee EDK di ñëw bu doon pare-brise arrière bi mun naa ne kon ci ñun lay ci ñun la ah. mais ci pare-brise avant la dañ xeer bi dafa dajeeg ñun dañuy dem xeer di ñëw waaw looloo toj oto bi quoi bu loolu weesoo man arbitre lay wax gis nga duñ nit du programmer lambam ay at degal la ay wer yu bëri dug fu ne daj fu ne samedi ju guddee nee naa nationale ma Pokola ño fa and bima biñ ma introsé na len dimanche suba ma dor ko mu daanu ma watal na len ko sax bo xoolee interview ni ko dama ko wat na len suba ma dor ko mu daanu legui na buñ demé ba am suñ loolu ba téye ko ba téye suñ dor mu daanu ba assuré ba ñew ba def ko nañu baye gaay ñu ñibi ñun loolu lañ ci amone benn bobu lañ ci amone demb Pokola mo nek jambar sax mais liñ ci am ni sax ko joon amaat dor mu daanu bo rek moolu lamb ji ñi ñibi loolu kese la Papa moo nekk jàmbaar nii sax lii ma war ko liis moo ko après lii metti ko loolu rëccee waaw mais nag sant yàlla quoi am naa après a xoolaat ni ni ñuy liggéeyee arbitre dafa boobu dafa daan arbitre sax soufflé bi hmm. maa ngi gis barke sëñ Touba non non nelaw boobu bi sax soufflé bi arbitre bàyyi ma bàyyi nañ bàyyi arbitre nañ nañ xoolal liggéey dafa metti làmb dafa metti préparé a metti bala nga xam na ngay ànd ak mbër di ko préparé ji dara gën koo metti si àdduna sa xaalis day jeex sa doole jeex sa lépp jeex kon nag boo ñëwee ba ci bis bi xam nañ la ko defal ni mu waree rek ñun buñ daanoo daanu nañ yaa ngi dégg mais buñ daanee tamit daan nañ ko waa ñun lool lañ xam waaw xam ñu gën a naajsal affaire bi xam nga parce que lii lay andi ay wax andi ay coow day yàq làmb Pokola démb mu doon def ci stade bi yëpp dafa mer moo tax mu def ko mer noonu yëpp après Pokola da moom boo ko doon mu daan wërcee dafa dof ci saase moo waral loolu yëpp am voilà li xew ci stade bi yëpp li ko li mu perte moo tax moom mu am mais nag yàlla baax na macha allah mais tey fi ngeen dugg ba indi seen dóor mu daanu mu leer leen ngeen téye ko seen loxo samedi jugudi xoolal vidéo yi arène nationale lañ dugg Pogola Fadam a ma filmé xaw ma buuse ma ne ko billaay walaay suba ma dóor ko mu daanu mais tey est-ce que newul Liss suba ma ne ko vaaral bu amul billaay walaay ma ñëw ma dóor ñëwee mais tamit est-ce que newul tamit dafa am ci ñum dugg ñu ñaanal ko ba ñu effacé dóor mu daanu bi ñu ñëwaat dóor mu daanu bi ñu ko effacé dina ko dal kon du dal ñu bëre

ak Zemi. ak Zemi ñoo yàq lamb ji. mais est tamit bu indee dóor mu daanu. waaw mu jeex ñëpp xam nañ ne Pokola. waaw ñi seetaan ñëpp nañ ne moo sàcc doole moo sàcc xew. fii ñun saa bu ñuy bëre xam nañ xew même bu ñu waree daanu sax xam xam ne lii ko wër di ko wër di ko wër ko ba téye ko xam ne kii bu ñu ñu koy jëlee waat léegi après leneen moo xaw dañuy wër rek di wër rek mais lépp dafay jeex macha allah waaw mais lamb Pokola Baldé ñu bëri ne coups yi muy jël Ousseynou moo koy sonal ci ay lamb est-ce que jotul gardam man néew ma du yoon coups yooyu bëgguma sax ma koy jël ndax fii nit nit la rek coup coup la rek bu la dalee da ngay bàyyi Pokola day defaraat garde bi bu baax a baax a baax a baax a baax changé waat lu bëri job bu baax a baax a baax parce que champion li ñu bëgg nañ ko xam nga waaw même saf na mbër nduru na mbër xam nga mbër kaami lañ ci moom mais day defaraat te force day defaraat. nuyu naa la bëgg la di la ziar. Ah, maa ngi lay delloo nuyu bi. di la delloo ziar bi. waaw di la nuyu bu baax yaag sa caméraman Fils de ndana nu ndaanaanu kat Fils de Mbaye Gueye am ndoxtu bëre bu nek ci mom ñu bari ne day may lo wax ci lool ah mais may bi xam nga ñom ñoo gis mais man gisumako man dama japp ne mbeur foma ma yegg rek war naa faa a génn ah, ku bëre nek ci mom warul ti dara ah man fuma fuma fu ma rek mun wa dind dama yag ci yàgg si bëre tax waaw ah, ku sa papa di bëre sa turundo di bëre waaw boo bëree ñu wax ak yow. ñu laaj la am na ñoo xam ne doomi mbër lañ mais dañuy am bëree bu des ci ñoom mais tey yow nga am bëree bi keroog ñu gi sa dernier combat sa adversaire lekk sa tànk egg la fu sori deux fois trois fois mais da nga koy bàyyi bu mu jël ko ngay dóor a bëree loolu du risque. loolu du risque si ñoo xam am na ñoo xam ne màgg bëree lañ. xam nga màgg bëre ak juddu bëre moom du benn waaw. dafa am ñoo xam ne dañuy màgg bëre ñii dañuy judd bëre waaw man si ñu judd bëre laa bokk moo tax bëre jaaxalu ma bañaka sax boo xoolee a ma pression si géew lu ma neexlaay laay bëree man du ma maye loolu mooy bëree mooy sama bëree waaw du ma ko nëbb bu feneen ñëwee tag ma wan la ne feneen laa mu ne waaw ku ne tàng laa mun rek yeeg boo ma yeggee feneen di nga xam ne yàmmu ma si tàng damay door di bëre waaw man damay xeex di bëre est yëpp ñoo lay may loolu waaw nañ nañ xool ku koo xam ne mën na si dara ñu jox ma ku si mën dara rek jëlal waaw. mais fii sa Mbaye Guèye ñu gis ne yoonu làmba macha allah mi ngi commencé ubbeeku fan la jëm moom am na ñu ko soxla mais moom it am na ñu mu soxla. waaw man moom am naa ñu ma soxla moom. Ah, waaw lu ko mel ni Cikiri wala Baari. waaw kiri ah, soxla woon naa ko trop mais dafa am lu tax bëgguma ko jël. lu la lee bu mënoo ko mais sama koñ Paa la dëkk. waaw ah, buun la dëkk waaw ah, ta ñu koy supporté ñoo may supporté kon xam nga day xaw a dëng tuuti mm-hmm. mais baari moom bu ñu ma ko joxee ma jekkali ko waaw wala cikiri wala cikiri ma leen jox ñoom Grand Dakar nga laaj ak booy fee ñu mu tuddati Grand ñoom ñaar ñëpp bëri ko si ñoom waaw ah, mbooloo rek xanaa moo leen téye ba fii mais bi nekkee bëri baari dem niñ jëlee tànkam bi mu mel xaru yar taxaw fi nga taxaw xam nga baari mënul bëri man kiriku bu jëloon sama tànk bilaay du ma daal mais kiriku bu jëloon tànk fils de mbéygee comme noonu wër na sëñ Fall lu ma daan. billaahi du ma daan. baari li mu am démb dóor na kiriku ba kiriku teppee ko su ne ko man du ma bëre dóor bi laay continuer rek. fi fi koy taf fa laa koy dóoraat. bu yàggee ndax dina ñëw di fépp ma daan ko. macha allah waaw. mais ak Pikine lan la. waaw man Pikine laa ndax sama yaay fii la dëkk. Mhm. man naa la ma sens interdit di mhm. laa dëkk. Mhm. laa kon doom Pikine laa. waaw man su ma ragalee rek damay tooñ. waaw ah, macha allah Pikine moom neex na démb. waaw ah, neex na moom neex na trop trop. waaw ah, neex na trop. poko daan. uma daan loolu dafa neex. waaw dafa neex trop. coow li noo ko gisee coowu làmb li démb ak tey. waaw coowu làmb li mooy. gis nga nit day juum. comme si arbitre yi lay wax. waaw nit nit day juum nit nit la rek. arbitre bi juum na dañ ko koy nangul. ndax ni ñuy jàppee mbër yi noonu la ñuy jàppee arbitre yi. waaw ni ñu leen jàppee mbër yi noonu la jàppee arbitre boo xoolee démb moom dafa juum. ndax ki yor sa mbiib taxaw sifflé woo di xool ba jël am mbër bi daanu moom mu ngi ñibbi liis mu ngi doon ñibbi nga woowaat leen xanaa xam nga juum weesuwul lool mais di leen wax nañ leen comprendre ndax ay arbitre kese lañ ah nit day juum lamba demee noonu pression lamb la bu jeexee rek jeex na li di ko wax na defarwaat lamba yi si kanamam poko na gën a yokk tërë yi gën a yokk lépp xam ne Pikine ñëpp a ngi si ginnaawam bu jeexee jeex na. kontaan naa.